mu ne walaajimu na ngeen taqoog laajima ji tariqi wirdo bi la tariqa bisa ci taqoog wirdo bi yu naalu la ñuy amee arib xubbu nafis bi taxqiqi ci dëggal laazim bi mooy wirdo bi wirdo bi ñuy wirdo suba ngoon na ngeen taqoog moom taqoog moom mooy ngeen di ko wirdo suba ngoon bañ koo ba ba ni ngeen génne àddina ci loolu ngay amee bénéfice maanaam ci loolu ngay heggee sa boroom xam yàlla ci dul benn gàllankoor ci dul benn fakkastal ci diir bu gàtt bàyyi daan na wax ne ku dëggu ci tarixa bi mooy koo xam ne yàlla war na ko ne wirde bi mooy mbóot mi gën a màgg Cheikh Tidiane mooy jëmmi mbóot su ko defee yu tumuranke yi nit ñi di xëccoo moom yoonam nekkatul ci jéem a xam kumpa yi luy xew suba yooyu teelul ko di ko bi rek mooy sax ci wirde bi nañ ko santaane waaye am Cheikh Tidiane wala muy jëmmi Cheikh Tidiane du sotti bàyyi na ngeen taxaw loolu nag ndax loolu moo leen heggaloo seen borom mooy tax ngeen am bénéfice bénéfice mooy hegg ci yàlla falasta déet yow tarbaxu ngay bénéfice fi axsi tariqi si jël tariqa bi illaa isa kuntu mooy nga nekk tuslixu eh, di xéewanal dawaa man ci taxaw tariqa bi jàpp ko du la jëriñ lu mooy ngay defar saa su nekk tasluxu di defar mooy nga jàpp ci islaam ni nga ci war a jàppee jàpp ci werde wi ni nga ci war a jàppee su ko defee di dox sa borom ni nga ci war a doxee xaal bi foog nga ànd ak moom saa su nekk ci nga am bénéfice ci tarixa bi waaye sa islaam bu rëccee rek wala sa tarixa rëcc wala sa dox si yàlla rëcc sa bénéfice rek wàññeeku walla nga mujj ko ñàkk mu kammilan daa mat matal surutu sartaayi tarixa bi al muqarrara yi ñu saxal sartaay wird wi juróom lañ mooy nga laab ci jàpp wala tiim laab ci sobe fexe ba sa yaram takk sobe sa yére bu mu taq sobe barab bi nga julee mu takk sobe suturaal sa awra dégg nga bul wax lu may ak sa boroom kër wala sa sëriñ walla sa waajur wala sa sang ñooñu mën ngaa wax ak ñoom lu la neex waaye ñu dul ñooñu bul wax ak ñoom am na ñu ne nag boo amee soxla boo xam ne nii ñàkk mën ngaa wax benn baat ñaari baat waaye daal li gën mooy nga bañ a wax jamono bi nga wér di yéene juróom yi ñooy sàrt yi laab ci jàpp wala tiim ak set ci sobe sutura la wala bañ a wax ak yéene dégg nga sàrt yooyu na nga koo matal mu kaabilan nga aji sonne adaabu ay tegginam al mutabara xalam mooy teggini tarixa bi daal mën nga ko tënk ci ñett seede xewli yàlla bañ a yëg sa bopp ci jëf yi ak it mm, rafet njort ci yàlla ak ci jaamu yàlla yi ñetteel ba mooy eh, dégg dégg nga dégg nga yi mooy benn ak jooyal sa mbir yëpp ci yàlla mooy bàyyi sa lépp yàlla rafet njort ci yàlla ak ci jaamu yàlla yi tegg yooyu nga fexe mu nekk ci yow jamono bi ngay wéddi it nga toog ferankulaay wala ni ñuy mm, toogee comme julli dégg nga ak werda wi nga di ko wax nànk noonu la ko ne ñun tarix bi doon defee nga jublu xibla ndax xibla mooy sangi jotaay yi mooy teggin yi eh, nañ ca sax muaddima daa ji màggal li ahli ñun ñooñ tarixa bi jamian mboolem seen la siyama rawatina alxaasatu ñu yàlla tànn kun na nekk mutiyaan daa ji topp leen képp kuy tijaare nañ ko màggal muqaddam yi nag moom nañ leen xormaal ñu la ci yàlla boole nga topp seen gannaaw ida charante boo sooboo fi di kaaril wirdi ci jàng wirdi wi fa laazim na nga taqoog al adaba teggin xadaral xat di kémtalaay kàttan booy wér de nag na nga fexe ba teggin yi nga taxoog moom te mooy jublu xibla gi ma la waxoon léegi te wér de wi nga def ko nànk nga wax ko nànk bañ ko wax ci kaw da ko noonu toog dégg nga euh, toogaay ku julli wala toogaay ferom ko lay toog bu am teggin daal soo amee ngant nag ci jublu xibla mën ngaa jublu fi nga mën a jublu te ki kuy tukki noonu dégg nga hmm. su ko defee teggin yooyu na ko bàyyi xel ci diiraayu wérde bi yëpp te addubun yaru fi zahirin ci lu feeñ wa baatin ak ci lu nëbb bii ci loolu yar xaala yéegi almaru nit ki di mawaatina jëm ci pay yàlla yaru ci lu feeñ ak ci lu nëbb ci la nit ki di yéegee jëm ci boromam yar bi nag dafay njëkkee digganteem ak sëriñam cëram yi di liggéey sëriñam du ko mooy du ko mooy ci làmmañam du ko mooy ci xoolinam du ko mooy ci déglu déggam du ko mooy ci loxoom du ko mooy ci tànkam du ko mooy ci benn cëram waaye mu fexe xolam mu def ci mbëggeelu sëriñ ba ak xormaal ko ak màggal ko jàppee ko comme Cheikh Tidiane ci noonu la nit ki mën a yégee jëm ci pays borom yi dem ba euh, nim wekkee woon bëgg-bëggam digganteem ak sëriñ ji sëriñam yàlla yéegee ko mu rekkee ko bëgg-bëggam digganteem ak boromam dem ba lu yégati lu mooy borom bi subhanahu wa taala kon ci teggin ci la nit ki di mën a yégee jëm ci jëm ci boromam walaa ngeen taqoog لازم زي الطريقة ورد لازم بلا آه، آه، آه، طريقة بذاك ورد وينار لن أمي أربح بنفسه بالتحقيق تدقل فلا صدير يو تربحون غي بنفسه في أخذ الطريقة سجل الطريقة بي إلا إذا كنت من هناك تصلحوا ولا تصلحوا دي ونن دواما تتخوا مكملا داجي متى الشروط وهي شرطهم المقررة ينسخل مقابلا لأجي سنة أداب وأي المعتبرة يعني قلم دنگا ما دمان داج مغل لأهلي نيون طريق بجميع بولم سن لا شما روتنا الخاصة تنفي كنا نيك متيان داج توبلن إذا شرعت بوسو بو في ديكار الورد شي جانغ ورد وي فلازم نغا تقو أدب تجل قدر حد كم تلاي كتن دنگا تا دوون يرو في ظاهر كيلو فاني وباتنا بنبو به كيلو يرقالي يجي المرونيكي في المواطنين جمشي في يا هذا إن يريد الإسلام والصلاه والتوفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته